waaw maa ngi tudd Oustaz Mouhamadou Guèye nekk coordonnateur bu MANAR mouvement national des arabophones républicains di Sénégal nekkoon si ginnaaw Macky Sall di liggéey depuis 2012 ak léegi parce que li waraloon suñu liggéey ak moom dañoo jëloon suñu mouvement suñu programme jox ko ñi nga xam ne ñoo nekkoon di politique ñëpp mais bi ñu gisee moom dong la ci suñu kii euh, suñu programme intéressé ñu nekk ak moom di liggéey ci wàllu boobu di liggéey ak moom si wàllu daara yi di liggéey ak moom it si wàllu enseignement arab mu defal it loo xam ne président yu bëri jaar nañ fi sax defaluñ ko enseignement arab muy bac unique bi nga xam ne reconnaître nañ ko muy it affaire ENAM euh, euh, bi nga xam ni ouvrir ne ko boobaag léegi it ñu ngi nekk si suñuy mouvement yoo xam ni ñun ñoo koy defal suñu bopp. ñokay financer suñu bop ñokay defal suñu lépp bureau national moko jël en charge mais dem nañu bu ci biir xam nañu ñom xeyna li ñuy def bokkul ak li ñu gëm surtout les responsables de Thiès ku melni Augustin Tine ku melni Abdou Mbaw ku melni ni Maodo Malick Mbaye ku melni ni Seydou Dieng ku melni nak kenn ku ci nek tok nañu expliqué leen dañoo amoon forum le 28 mais forum bi du lenn luñ ci def rusna wax sax li nga xamni moom nañu jàppalee pour forum bi fekk ñun def nañu suñuy engagement ak hôtel résidence def nañu ne léegi nag dañoo décidé comme que ñoom noonu lañ demee ba noonu lay demee c'est respecté wuñu respecté wuñu ñu respecté wuñu daara respecté wuñu euh, enseignement arabe ñun nag ñu décidé bàyyi leen ak seen loolu liggéey ak suñu bopp ndax affaire bi ci kaw la respecté wuñu suñu responsable national léegi nag comme que demee na noonu ñun dañoo décider au niveau national région yi nga xam ne ñoo nekk ci sépp incha allah rabbi ñu bàyyi dem uti leneen lu ñu def wala dem uti keneen ñoo ñeneen ñoo xam ne ñoom la ñuy jàppale si wàllu politique pour ñu doxal enseignement arabe ak enseignement coranique euh, coranique si biir Sénégal léegi daal loolu mooy suñu la organiser nañu suñu forum le 28 gis nañu leen ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mais du kenn koo xam ne kii.